lim ñu soxlaa mooy ñu ànd liggéey réew mi ndax loolu laa woote woon parce que lim ma wax tamit neex na nee na ma yow da nga ñu tàndal ko loxo waa Médina ak tendance bu waay bokk man tamit ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple man nag président daf ma bette benn sac ndax wóolu na ma barki démb ñu waxtaan waxtaan ci réew mi euh, tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la ministre conseiller auprès du président ma koy sant di ko gërëm man nag Médina ci xol laa bokk yaakaar naa ne moom lim ñu soxlaa mooy ñu ànd liggéey réew mi ndax loolu laa woote woon parce que lim ma wax tamit neex na nee na ma yow da nga ñu tàndal ko loxo waa Medina tànnaas waay bokk man tamit ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple man nag président daf ma bette benn sac ndax wóolu na ma barki démb ñu waxtaani waxtaan ci réew mi euh, tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la ministre conseiller auprès du président ma koy sant di ko gërëm man nag Medina ci xol laa bokk yaakaar naa ne moom